asbillahi mina seytaan rajim bisimilahi rahmaani rahim mbokki julliti mbokki taalibe yi nga xam yéenay topp jamono ñu ne seen télévision Touba Argentine TV euh, comme ginnaaw bi nga xamee ni ñi nga xam ne ñooy taalibe Seex njaboot gi nga xam ne ñoo euh, taxawal li nga xam ne mooy gàmm gi tey jii fii ci Argentine La Plata euh, ginnaaw bi nga xamee ne def nañ seen discours jamono ji ñu ngi waa njabootu jës bu xulóob kàngam yi nga xamante ne ñoo ngànk waa daayira bi muy jëwrin yi ñi nga xamante ne ñoo yor daayira bi kon bu ko defee rek dañuy jox sëñ Moudou Moussa Fall moom mu joxe am nuyoom waaleykum salaam wa rahmatullah maam Lam Fall Tambadel ñu ngi lay nuyu ñëpp ñu ngi lay nuyu di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di bala ak ñëpp te bala ak ñëpp di ñaanal ñëpp jàmmal xewal ak tawfeex di ko sàkk ñëpp di ñaanal maanaam Serigne Touba Cheikh Sidel Moukhtar yàlla yàggal fi yàlla yàggal ko fi te wéral ko di ko ñaanal mboolem xalifa généraux yëpp di ndokkeel ñëpp tamit ci guddi gu tedd gi nga xam ne si ne mooy guddi gu yonente bi salallaahu taala alayhi wa sallam nga xam mooy xaral an bi yaay kuñ bind ku nekk moo tax di nuyu mbooleem daayira jot bu xulóob di nuyu mbooleem daayira jamia seex di jiital imam mam ndaw maam As Jaxate ak mboolem taalibe bi yëpp di ziar bu baax a baax a baax di la ziar bu baax a baax maam Lamp Fall Tambadel jërëjëf kon bala ñoo jox ki nga xamante mooy porte-parole bi en tant mu ñëw fi nga xam ni euh, waa Jamiya Seex ñoo fi invité li nga xamante ni mooy gàmm gi te gàmm nag comme ni ko wax jamono ju nekk mboolem kull koo xamante ni umal islam nga yaa yaa ngi ci gàmm ndax kuñ ci célébrer ka la màggal judóom muy ngën ngeen yow nag ngay jëwriñ fii di jëwriñ daara Jazbul Xuluub di taalibe Serigne Touba Serigne Touba li mu bind ci gàmmu ak li mu wax ci gàmmu en tant que nga ñëw fii tey jii ana gan fàttalee nga ñu mën a jox ak ban taxawaay nga am ci bis bi. waaw santaat yàlla rek julli ci yonante mi di jaajëfalaat Ahmadul Xadim comme noonu nga ko waxee muy suñu yaakaar Seexuna Seex Ahmad Bamba ku nekk xam na ni li mu bind ci gàmmu ak maanaam ni mu mel ci gàmmu ak mboolem mag ñëpp nekk Sénégal muy maam El Hadj Malick muy eh, Baye Niass muy Bou Kounta muy ñëpp rek. maanaam lu yéeme na boo nee suñu sëriñ Seexuna Seex Ahmadu Bamba boo ne gis bu rek xool lam ci bind ak li mu bind ci guddi gàmm nga xam ne maanaam fu murit nekk war ngaa fonk gàmm rawatina maanaam te dégg nga kàddu sëñ Saliou yi nee na gàmm guddi ga ko jiitu wala ga ca topp nga yamale kook maanaam guddi ga ko jiitu ak guddi ga topp ca moom dara jëru ko ci julli te nee na fu waaye mën a nekk fu nekk na nga dem fa mbokk julli dëgg na bare nga ànd kook te ku nekk xam na ni relation bi jullit a fi am mënoo fee xàmmee murit ak tijaan te loolu mooy li war ndaxte tariixa ci biir kaadaru l'islam la nekk te loolu ñu ci sant yàlla bu baax a baax a baax dajeeg di ndigalul Seexuna Cheikh Ahmed Bamba dajeeg ndigalul maam Alaaji Malick ba ñi ko fi toogal xilaafa ñëpp ba ki ko fi nekkal mu gën cee ràññeeku nag gën cee fësati yéen fësal ko fu nekk nga xam si ay euh, discours am bu njëkk ay kàddam bokk nag li ci gën a fës bëggatuma dégg murit naan tijaan wala tijaan naan murit te loolu nag ñu ci sant yàlla bu baax a baax daje nañu ak jëf ja te boobu ba ñu ngi ci di ci dox relation bu rafet a rafet a rafet xam niñ koy taxawoo bis boo ñëwee fii mën a fee xàmmee kii mooy kan dañuy déroulé programme yi kenn ku nekk maanaam ñëw feeñal sa yéene ci bis bi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax ànd maanaam dundal ko di màggal bu dugg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ci sant yàlla bu baax a baax a baax di ziar ñëpp nag di ci ndokkeel ñëpp mboolem La Plata ak waaye mën a nekk di ñu dégg ñu seetaan jërëjëf jërëjëf kon sëñ Modou Moussa jëwrin kadd yi am na solo lool en tant que jëwrin jës bu xulóob euh, waa daara jës bu xulóob nag bu ñëwee bisu gàmmu euh, da xasida koo xam ne Serigne Touba mu ngi ko bindoon ci bisu gàmmu euh, muy xasida jës bu xulóob kon ñoom jox nañ gàmmu wàcc waayam kon nag bu ko defee rek suñu wet ñu ngi fekk porte parole sëñ Moustapha Thioune mooy bu ko defee mu am ak kàddu yu mu jot leer rek ak mbokk taal yi nga xam ne ñoo bàyyi xel seen télévision Touba Argentine TV baado bismillahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh suñ lamp ñu ngi lay ziar bu baax di ziara mboolem taalibe yi nga àndal muy waa Touba Argentine TV ñu ngi leen di bu baax di leen tatagal ci bis bi muy bis Seydina Mohamed ginnaaw loolu ci nuyoo beeg ziar bi ñu ciy jiital sëñ Sidal Muxtaar Mbàkke di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér kazalika di ko ñaanal Cheikh fi lool te wér di ko ñaanal mboolem xulafa diin yi nekk yëpp rek yàgg fi lool yàgg taxaw diine ji ànd ko mboolem taalibe yëpp ñu ngi lay ziar baax a baax lam waaw kon sëñ Moustapha Thioune en tant que jëwriñ li nga xam ne mooy daayira Jazbul Xuluub di porte parole euh, ñu bëggoon nga indil ñu ci ak leeral seen diggante ak yéen waa Jamia Cheikh bi ci seen nekkin fii ci nga xam ni euh, mooy Touba Argentine La Plata kon bu ko defee nga indil ci ak jàngat ak euh, yéen seen seen wàll ci bis bi daal ban cër lañ leen cërale ci li nga xamante ni mooy gàmm gi nga xam ne dañ leen ci invité tey ji waaw ginnaaw loolu bu ñu sant yàlla bu baax a baax a baax. bis bi nga xamante ne bii ci lañ taxaw ni muy guddi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamante ni bii mooy ngën ki mu def ñooy màggal bisu juddoom a ah, ñi nga xam ne ñooy taxawal bés bi di daayira Jamia Cheikh daanaka mën nañ ni mboolem jullit yi yàlla yi nekk fii ci La yëpp ñoo ko bokk taxawal ñoo ko itam ñu am ci cër bu yaatoo yaatoo daanaka mën naa ne bis bi yëpp waa daayira Jazbul Xulub li ci ëpp seen taxawaay fës na ci lool te mboolem jullit yëpp ñoo ko bokk kon nag dafa mel ni rek li borom bi subhanahu wa taala di wax naa waxtasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu jooju daa mel ni fii ci La Plata moom ñun koy jéem a dund bu baax a baax a baax a ci mboolem daayira yi nga xamante ñoo fi nekk muy daayira Jami'a Cheikh ak daayira bi nga xamante mooy daayira Jazbul Xulub ba tax na ah lu jëm ci bis bi ko àndandoo ñu ko ñu woo ñu bokk ko ñoom lépp nag ci lépp boole ci mbaalaam ci programme beeg lépp rek rek mën nañ ci lañ bokk ci waa daayira Jazbul Xulub boo demee ci waañ wi boo demee ci biir programme bi yëpp da leen di seen ñu bokk ci liggéey bu baax a baax ñu cëral ñu ci bu baax a baax kon nag loolu moom ñu ngi ci sant bu baax a baax baax di ñaan yàlla mu yokku di ñaan suñu borom bi subhanahu wa taala mu fekkale ñu ko ay déwéni ban gën koo mën a taxaw ci li nga xamante ne noonu lañ ko bëggee ginnaaw loolu daal sant nañ ci bu baax a baax a baax ndax comme ni ko suñ mm, jëwriñ ju baax ja di waxee rek di seexul xadim nga xamante ni moom daa tagg yonente bee tagg tagg tagg moom ba amatul mu ko wax moom daanaka naa ko huwa nabi wa rasul wal xalil wa wal habib wal ak mu ngay wax ci gis bu naa ko fa man yuazim mawlida nabiyina baabal huda fala yuxaasibu huda faxtari man yuazimi daanaka ci condition ci yooyu rek lañ taxaw ba nga xamante ni fépp fu ko woote rek den ñëw ànd ko jaami yàlla yi màggal ko ci li nga xamante ni noonu lañ ko santaane yàlla nañ yàlla dajale ak yiw wi yàlla nañ yàlla fay ci li nga xamante ne bi ñu ngi ko fi jàng ci alxuraan may xasida ak lépp lu mu doon rek yàlla defal ñu ko ay yiw dajalu ne ngënali bis bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa waaw jërë ngeen jëf kon sëñ Moustapha dégg nañ kàddu yi muy kàddu yu am solo lool macha allah nga yëkkati ko euh, nga xam la ni maanaam lépp benn la nga xool ni tey ji waa daara Jazbul Xuluub njabootu Jazbul Xuluub euh, taxaw nañ ci bis bi taxawaay boo xamante ni si nii naka Seexuna Seex Ahmadu Bamba Xaadim Rasuul bëggee woon mu mel ni des ñu ginnaaw benn yoon euh, kon bu ko boo gisee ginnaaw màggal rek ni gàmmu kon loolu bis doxul seen diggante di leen fàttali yéen yen ñi nga xamante ni yéen a ñu bàyyi xel ba tey kii nekk sunu wet Euh, mooy Serigne Modou Fall jëwrin mooy vice président daayira Jazbul Xulub Serigne Modou Ndiaye tamit bokk ci ñi nga xam ne nii ñooy jëwrinu daayira Baye Fall yi euh, kon bu ko defee rek jamono ju nekk euh, nii la mbir di doxee ñun ñëpp benn lañ murit tiijaan xaadir laayeen ñeseen ndax tey ji fépp foo dem ci àddina rawatina Sénégal gañ dëkk tey ji ñu ngi célébrer bis bi di ko màggal tey boo demoon Tiwaawan tey ji boo demoon Njaasaan tey ji boo demoon Tayif tey boo demoon Touba Njaarim fépp foo mën a dem da nga naan lépp benn la jii kon nañ gën a boolewaat xool yi ànd gën a doon benn te xam ni ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay kon bu ko defee rek euh, dañ leen di jox dig daje rek nis tuur rek ñu continuer ak yéen ak yeneen i jataay wasalaamaaleykum wa rahmatullah